tey moom dama ñëw jàkkaarlooku monsieur le président wala monsieur le ministre wala adit ah, sëñ bi. léegi président Macky Sall mu ni ci lay wax candidat lépp di le quinze du fukk ak juróom ah. Ah, léegi loolu bëgg a wax dañ koy xaajoo rek ah waaw quinze quinze ku ci nekk sa njoñ ñu ngi wax naan diw lañ bëgg ñu tam waa léegi loolu mooy ànd jayante tàggoo jëwante président Macky Sall boo dégloo ci discours am daf ni ku ma tànn ngeen ànd ceeg man léegi nag bu diggante boobu nag bu fekkee tamit waral ku mel ni jaw ni ko kaay waxal ma ci suuf ni man nga tànn keneen woo ku mel ni barxaam waxal ma ci suuf kee waral ku mel ni kaay léegi fan la jëm ku ci nekk tey jàppali ka wax ka waxloo nga ci wet jaw gis nga ka wax ni diw la ñuy tabb maa la waatal ni ka ko waxloo ni ko waxal man la ñuy tabb neex na ko bu ko naqari woon day génn démentir mais lu fekk mu ni tekki rek moom posé na candidat moo tax candidat bennoo yéen a robari ci biir parti bi. bien sûr. mais ah, tey déglu naa revue de presse ñu tudd ñu ay ni ñu ne ne dañuy posé candidat waaye léegi yow président ni tànnagul nga ni da ngay posé kooku bu président tànnee keneen da nga naan jàll nga yow dem nga lii mooy problème bi. ah waaw moom kay moom kay li doon a tas ci Sénégal ci parti Sénégal moom <laughs> moo door a bëri ren. ah moom parce que moom ñëpp a booloo moom ni Ousmane mi la ñuy ah, dañ ñi ñoom amuñu numéro un. amuñu numéro 2 amuñu numéro kii maanaam seen numéro 1 numéro 2 jaw sama sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam moom mooy woo kuppel ah damay wuyu maa ngi lay ziar bu baax amin Mbacke amin amin ba yaa ngi ci jàmm wax naa la daal ni la fu ma bëggee reetaan man am na sëriñ boobu moo ko tàppee fii moo ma rawal théâtre yi damay ree ba sonn yàlla xam na ko waaye à part ça xam nga jaw xam-xam nag dafa yaatu ku ci nekk danga koy nangul xam-xamam n'est-ce euh, waaye xam naa ni jinne du caaxaan mag ñi dañ daan wax naan baraham loo xam ne du dox ci sedd du dox ci lëndëm te léppam safara la am na xam ne foo ko fa wowoon sëñ bi foog mu taal baraham da nga gis àll bu tàkk ñun la jinnee ko taal wala jinnee fa romb kon kay loolu du caaxaan loolu xajul ci plateau tey boo xoolee mag ñi dëgg sax de fi ñuy samp toog fa ni jinne lañ fa toogal jaw voix la ñuy dégg te jinne ji sori na mais day communiquer ak ñoom rek kon am na ci loo xam ne bu ko nit woowee ni la mu ngi ci wetam rek loolu moom da da nga koy nangul peut-être ne la macha allah te yàlla da koo defal xam ku ci nekk ak li ko yàlla defal da ko koy nangul jàpp naa ne nag comme loolu xam-xam boppam la na ko ci yàlla defal jàmm hmm. ah bien sûr euh, waa xam na kenn ku ci nekk jaw ak ak sa xalaat teg ci xam nga tey bu dee jaw dafa xam ni lii laa mën a wax pour sama ceeb tooy par force da koy def parce que mu ngi mel ni am na wax naa la fii nii la sëriñ bi ma fi attaqué ma woo ko mu ne ma dépense wut xam nga tey kooku da ko koy nangul n'est-ce waaye ñaar dafay am gis nga jaw nit ki mbir mi mooy la ma li ma tontu sànq ñu rek xam nga dafa nekk loo am jarul jarul jarul xëccoo te waa ji wax ni olof nee yàgg bawul dara n'est-ce léegi nag ku ci nekk tey ak sa xalaatu bopp ak it jàpp nga ni lii mooy doxal sa yëf koy nangul rek waaye lu ci gën lii ma la wax amul wane lu leer teg sa tànk fu dëgër lii rek boo ko deful moom sëriñ sëriñ bi ci suuf Ibra Faal la ko wax topp leen ma jërta gàddu yet ma wax la ni la pitax buy naaw dunk yi di wadd du wadd di wadd ci suuf naaw ba du sori toppal suuf gi rek léegi mu wadd sa jow dama lay dimbali ci benn ci benn affaire nga bàyyi ci xel gis nga dangay ngay dégg métier sëriñ métier sëriñ yàqu na yàqu na métier sëriñ yàquwul mu ngi fa mu nekkoon ba tey xam nga kenn moo naan métier sëriñ yàqu na mooy ki ci gisatul boppam ci benn côté parce que lim ci gis mooy da ngay dem hôpital nga dem médecin bi xool la ni la lii dal nga ci médecin bi mu xool la ni la lii la moo la dal te pourtant mun nañoo bokk benn wax mun nañoo wutee wax kii faj la bii du wér nga dem ci kee mu faj la lay du wér sëriñ bi ku ci nekk man damay wax ni sëriñ bu yemoon ci man mën naa mocc bopp mu wér mu dëggal ci boppam ni damay mocc bopp mu wér ñëpp dañuy daw uti ko xam nga lan moo tax parce que dañuy gëm ni kii yàlla may na ko ci lool parce que ku mu moccal boppam wér na léegi nag sëriñ si liñ ci boole loolu rek mooy problème bi ça veut dire mooy li ma leen tontu sànq gis nga ku ci moytuwul wax lu ñëwagul sëriñ bi ci fii fan la rek ngay mujj mooy li sëriñ Tuubaa naan ku ci moytuwul teggi yoon fii fan la rek ngay mujj àdduna boo bëggee dox àgg barxam da ngay jaar ci yoon wu leer bi rek lu mu sori sori di nga àgg mais gis nga jaw boo ne xaar ma teggi nii xaaxaam yaa nga fa ndëg yaa te boo moytu pour nga jéggi xaaxaa bi day jafe loolu ñu bari loolu rek moo leen sonal kon ni nga ko waxee yàlla yàlla nattoo te effectivement nattu la gis nga fii jàmbar amul ku ñu dimbali rek gis nga euh, tey rafetul nag doo ko rafetlu parce que da nga daan soxna la buy sëy di sëy sëyam kooku boo jotewul ak làmb dara gis nga tey kooku ci encouragé ko mooy koo xam ne tey fu mu toog di ndax mooy jëkkëram di ko sagu kooku da nga koy encouragé te ndéygee noonu lay def dégg ñaareel bi mooy Papa booy jinne ndaw la demagul fen àdduna li des ci kanam moom ma ëpp foofu li mu wute te dégg nga ñu ne la mbappat moom mës a dem toj kon dara weesul dara weesul àdduna defaruwaat rek tey xool faay fan la nga yokk ko li des nga bàyyi yàlla te xam ne bis bu ne nga gis nit taxaw ñu ni maara day taali mbetteel am ci parce que ba nga nee làmb la wax jeex olof yàgg na koo firi di wax làmb reenu ñàmbi la kenn xamul fa mu àq ji ndax yow mii bis bu nekk làmb nga am ci déception man it ma am ci déception keneen am ci déception ndax mbiru sunu boroom la ndax tey ak sëriñ lu mu ngemb ngemb ni tey Papa Diop Boy Djiné ngemb ma ko ñaanalu ma ko damay wax rek mu leer pour te dire dégg nañu sax téléphone mais dama ni la tey bu la waxoon ci ngemb rek danaan la lu lu mu xam def na ko kon loo ko mën a jàppe yàllaa ñëwul rek yàlla ànd ak kee rek ka yàlla àndal lu mu daan wax dégg nga li mu wax yàlla yërëm ma ci daara yi mu ni mu ni ah. yàlla day jël ñu ñu koy tooñ di ko kii te man maa ngi nii nangam nangam ah. teywuli teg lu ma ay victoire waaw loolu àdduna maanaam Serigne Cheikh nee na caali dafa bokk ci xeetu ñaan yàlla mm-hmm. mais bu mu ëpp mm-hmm. mais nee na caali bokk na ci xeetu ñaan yàlla des fois nga jékki-jékki rek caalit mm-hmm. ah ñu ni waaw <laughs> diw caalit na mais caalit bu mu ëpp waaw loolu la rek yàlla na ko suñu borom may ndam ba amaate ki dégg nga naar du amul problème waaw moo tax wala garaawul waaw yàq li baas amul problème boo yàq li baas ma wax ko rek loolu du problème macha allah ah. yaa ngi waaj euh, waa Mauritanie na ah dëgg mën xam nga Sénégal jaw ah. xam nga kañ lañu waroon dem laajal kii buñ jullee ba am une semaine ba léegi nii ndeysaan pour xool nu ma finaliser ak maladie rek mooy sama problème dèjà mais tey ki waa ji dafa dem ba ni moom problème bi mu am mooy xamatul sax lan la leen di wax pour te mais moo lay wan ni tak ak sant yàlla aussi xam nga jaw dëkk boo musagul dem ñu jël sa poster taf ci ay oto jël sa poster taf ci dëkk bi ñëpp xam ne diwa ngi waaj a ñëw diwa ngi waaj ñëw loolu sant yàlla mënu ko wees xam nga réew damay wax ni boo nekkee sa réew dafa bokk ci pourbe nga fexe ba li ci biti nga liggéey ko ba moom fa man loolu laay loolu laay xente wo te di wax bay sa weewu tànk bi moom dëkk bu ñu ci def xam nga dañ naan xaas Gambie ko moom xaas moom moom Gambie léegi baal ba ma dem Mauritanie léegi bu ñu jógee Mauritanie dëkk jaww ñu xam ne maa leen fa maa la fa encore ma demaat man wër na fi ne maa la ëppale ndax boo duggee sa dëkk gis sama photo te photo jaww doo ko fa gis. la. nee ah ah. xam nga Europe Europe kii xam na kaati mi xam na lii xam nga tey jaww war ngaa xam ni xaas tey bu fa duggoon ah. naat fa lu ko gën a jafe amul yow loolu war na laa wóor xam nga dëkk boo xam ni tey sa téléphone bii. mënoo am jàmm ndax ñoom. n'est-ce pas ba mu jarale ñuy dagg bi am na ku mos dagg ji bee mu ñëw laajal kaati mi jóge Amérique mm-hmm. dafa ma mere woon ci li tax daaw ma jël téléphone waaye bi mu ñëwee fii bëri ba fan yee dafa ma ni maa ngi lay door a comprendre li tax kenn du la mën a jot téléphone mm-hmm. te mer boobu moo taxoon ma dagg bee ñëw laajal kii pour trois jours rek mm-hmm. ay ay la leen dikkee ça veut dafa am loo xam ne jaww sant yàlla mënu ko wees xam boo nekkee ci dëkk nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa tey Euh, dem ba amatuloo fa prouver ci gàttal nga ni dama koy yaatal jëli nit di former xam nga former nit léegi dafay jafe ndax da ngay former kaati bu man xel la woon deuxième ba ñoragul kaati xëy ni man naa taay lii rek mooy sama problème ah loolu lay xel rek de xoolal ba sax xamul su am na wargaak am na naanaak am na lii xëy ni rek laa moo tax formé bi metti parce que da ngay balaa génn mu ja génneel boppam lii mooy problème bi man tey la ma doon formé am ko ci yéene bu ñu toogoon heure bi dem naa sama yoon. ah am naa nag ñu ñu sama yaakaar nekk waaye nag dama dul teel a teew xam nga jaw maa waxatul am naa ñu yaakaar des ni xam nga tey ñii xam nañ am na koo xam ne su ma laajtee ñu ni ñëw na ma ne ah alhamdulilah kontaan naa ndax day faj ba yow sa bopp nga yéemu ci day faj ba yow da ngay yéemu ñii def yëpp dañuy yéemu ay dafay kaa wax. xam ko non comme moom mu ngi naan lawul deuxième bi ñëru dafay ragal mooy mujjee nit ki léegi bàyyil ma téye loolu mais li may formé bu matoon yow mi xam ngeen dootoo am jot wallaay yàlla xam na ko mais Barham tey ñaata nit la ñuy jëlee malade ñu indi fii kaa ñu dem yóbbu kër xaar sans ñu woo la téléphone léegi nag imaginer waa bisu tabaski laa jël kii bi ñuy génn la malade di dugg wàcc ci taxi ba mënul sax taxaw ci jouru tabaski laa la wax dama obligé ni isaakaay léegi nag imaginer nga dem ba tollu foofu te kay dem mu ngi dem ay waay yàlla nañ fa fekk xaas tey mu ñëw ñu ne ko xaas tukki na te fekkul ko fa toogal xaas mu mënu ko mooy li ma tontu waa ji wal fajiri mu ne ma boo demee est-ce que li nga man ñu ngi fi bàyyi mën nañ ko ma ne ko mag ñi ma ne ko mag ñi barxaam dañ daan samp seen kër ba ku leen fa doo fa naan barxaam boo demee ci àll ba di nga fa gis gétt ku fa dugg laal nag doo fa génn parce que dañoo préparé gétt ba dégg nga boo duggee ñu la lii mooy kuy gétt bi wala lii mooy yëkk gétt bi léegi lii mooy yëkk gétt bi loolu wax la ak cax ça veut dire ab sëriñ bu ne day préparer loolu waaye cis kàttanu yàlla maa ngi ñaan sama borom ñi nga xam ni maa ngi leen di teg loxo nii jaw yàlla dimbali leen ndax xam naa bu leen yàlla dimbali rek ma noppal ndax dinaa mën a génn bu boobaa yow mi xam nga ni dara teew maa génn walla yàlla xam na ko dara dara mais am na ci loo mënoo goo ko nii parce que léegi boo tëbee dem def ko léegi imaginel ndeysaan sa kër bàyyi nga ko noonu gental nga ko parce que li nga ko géntalee mooy ku ñëw xaas nekku fi ndeysaan tas yaakaar googu dafa rëy te man xam naa ne bu ma duggee Europe ah waa Sénégal dañ ma mu loolu moom wër na ma ndax tournée yi xoolal ne bi ñu ko organisé fi ñu waroon a jaar ci Europe yëpp billaahi laa jël sii di nii nii jigéen jënd na kër Canada ni sànq ñëwuma man du tijji kër yi te la ca war moo ko jëm uniquement pour lan naa ñëw ñaanal ko ci kër te ñaata nit la dal bari na waaye léegi nag mbir bu tollee foofu adduna lu fi jar yàkkamti amul gars yi tukki wuñu de gis nga bés bu xaas tukkee nga yëg di xaas tukki ndax man fu ma dem di nga gis tubaab yi sol tiseetu xaas di nga gis tubaab yi naan jërëjëfe maam Cheikh Anta waaw ma doon la gars yi tukki wuñu de gis nga bés bu xaas génnee fii ndax comme yàlla dafay def ni aéroport rek bu ma fa wàccoon nga xam ne xaas romb na fii yàlla xam na ko fu ma romb rek di nga xam ne xaas romb na fii ma xam nga comme Saneex daf ma ni Saneex dafa dem tukki nee na ku mu dajal mu ko xaas fu mu dal Amérique xaas fu mu dal fu mu dal nee na li mu rëcc mu ni li tax ma dem te ànduma ak yow ça veut kon foofu la yëf yi jaw dafa nekk lu lu lu am solo